lii alluwa yonent bi la concerné mais mu des nag njàng mi nga xam ne nag alluwa penc mi ñoo ko soxla alluwa penc mi itam li ci yàlla jàngale yépp ci ñaari baat rekk la ko tënk alam tara ak araayit li yàlla bëgg wax waa bi yëpp tënk na ko ci alam tara ak araayit bu subaa dinañ ci ñëw benn par benn mais bi ci gën a am solo ñu war ko retenir dama dégg fan yi ñuy wut lu ñuy naxe nit ñi naan diw bi mu fi ñëweek léegi réalisé na nangam réalisé na nangam réalisé na nangam ma ne waaw alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama dati l imad allati lam yuxlaq mithluha fi lbilad wa thamuda alladina jaabu soxra bilwaad wa firawna di l awtaad alladina taxaw fi lbilad fa aktharu fiha alfasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adab inna rabbaka la bil mirsad waaw maanaam buñ dee nit lu mu def wala lu mu réaliser ci ci réewam te yàlla tudd na ñi mu tudd ba noppi tudd na aad tudd na iram tudd na thamud ah? tudd ñëpp tudd firawna wa firawna dil awtaad alladina taxaw te ci biir jamono képp ku réaliser lu lu jaaxal nit ñi wala projet bu bu gigantesque ñu ni c'est un projet pharaonique di wane ni dañ koy tollaleeg la Firawna defoon et pourtant ñooñu yëpp ak lañu def yëpp yàlla nee na dina leen caw soo adaab ndax inna rabbaka la bil mirsaad waaw yàlla nee na matiim ndax bu fekkee da ngay tabax dëkk yépp te yépp nga toroxal leen yàlla nee nga am affaire ak man waaw ba tax na kon nag bu defee kenn ku nekk nag yor sëj laara sa kaala waaw fu ne di téeleleli téeleleli nangam parce que dig nañ la rek dinañ la sarax nangam daf ko jar daf ko jar waaw e nee nañu président nee na dinañu sarax juróom-ñaari milliards juróom-ñaari milliards yi dañoo xam fu mu jóge ñi ko fi indi lan moo taxoon ñu indi ko fi problème mu Sénélec bi ñu am courant yi coupé un peu partout ak li ñuy fayloo nit ñi kenn xamul nu mu toll ak route yi inondé un peu partout nit ñi amuñu fu ñu jaar oto yi amuñu fu ñu jaar waaw yooyu yëpp foofu la gënoon jekk foofu la gënoon jekk waaye dem ci borom tañ yi rek kenn ku ne dajale ay nangukatu àddiyaam ñuy lay wax di la tiwaawan nag moom da defa defe ni meeting a xew waaw ñi ci des sax correct nañu njaasaan correct nañu Ceneba correct nañu hmm? un peu partout ci Tuuba sunu maam bu baax ba wax na la mu koy wax et c'est très très clair waaw ni ko bu fekkee ni def nga fi lu nekkit ma di la yëgal ni élection moo su am ba nga gàññee fi loolu li mu firi lan la ce qui veut que mën na ni parce que dama gis sànq ministre de l'intérieur di ko wax nan dafa dem Arabie Saoudite gis fa benn genre musée boo xam ni musée islamique la la fa nekk yéeme mu demander roi bi pour ñu defal ko musée bu mel noonu ci Sénégal ndax mais Sénégal am na leneen lu mu tal lu dul musée hmm? yonent bi it li ñuy dunde ci moom duñ ko jaar ci musée ndax li xew nii yonent bi bi ko Maodo di sonne Serigne Touba di ko sonne mais boobu ñoom xamuñu woon luy musée seen yitte rekk ak seen taxawaay lañu def ba nit ñi yegg fi ñu yegg tey waaw ba tax na kon nag bu ñu bëggee nax nit ñi di ko jaar fii ak wax yu kenn xamul doxul doxul moo tax jël naa ay disposition euh, fontu baaxul fontu baaxul parce que loolu Mimi Mimi Touré wax wax ne bu ñu accepté candidature amadu Ba booy ba ñu jàpp ni accepté nañu troisième mandat bu Macky la elle a parfaitement raison elle a parfaitement raison ba na kon nag duggaguma woon ci biir yëf yi mais bay boo ngeen pare waaw waaw parce que font baaxul. on en a assez waaw pare leen daaw sëriñ si fii yëpp lu ñu jàng jàng naa ko waaw te ëpp ñu may taalibe nag waaw bu ko defee kon nag bu subaa dinaa leen wax ñun fi ñu jëm sur le plan politique ak nan la ñuy pare sunu élection ak nag nan lañuy ñafante ma wax leen ko waaw ngeen baal ma du ñàkk teggin du dara waaw du ñàkk teggin du dara dafay am koo xam ne bu yeggee fenn fi waxal ak moom ci dimension bi nga mën a waxee ak moom waaw ndax loolu rek la mën dégg waaw bu ko defee kon nag nu ñu organiser wu te nañu bàyyi xel suñu bopp waaw xam na mbokkuma ndeysaan ñu ngi seet fu ne di ko jaar pour nuñ ko bloqué mais xamuñu ni man mën naa ko yóbbaale Sonko man mën naa ko yóbbaale jeex na waaw tes parteek yii yëpp ñun ñoo ca jiitu woon tasuñu woon toog fii nii dañoo tas Moustarchidine hmm? ba góor gu am fayda ga góor gi Mama Jaw ngeen bal ma baat bi mu wax ka waxoon ni tas na mu mënu ko tas sa sëyu ndey moo gën a yomb waaw waaw góor gi maam ma jow mag mu amoon fayda la waalo waalo la nag waaw parce que waalo waalo yi moom dañu dëgër fiit lool waaw xam naa ci dara <laughs> naan am na ñu may xool di ree waaw waaye noonu la dafay am loo xam ne fayda rek a koy mottali waaw li may wax tooñu maa tey baalu maa rek mooy tax borom baale ko et puis c'est tout bu ko defee kon nag suba dinañ yeggale cours bi ci diggante alam toro ak araayit li ci nekk yépp ci pédagogie ak sagesse yi mu àndal ak li yàlla di attirer attention nit ñi lan waaw eh, mu mel ni nag du ñu bëggoon ñëw rek barkeelu ay baat rek parce que waxtaan yi du jeex te nit ñi dañuy sonn li ma doon wax ci suba rek bi ñu defee accueil bi ma ne am na ñoo xam ne seen gàmmu jeex na waaw bu ñu sañoon sax fi mu ne jël seen oto dem ñibbi waaw ndax dafa am loo xam ne ku mu doyul leneen dootu la doy waaw waaw ba defee kon nag ñu bàyyi xel ñu ñuy neexal di leen wut lu ñu